bëri pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam bismillahi rahmaani mbokki Sénégal mbokki àddina mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci aaxiru zaman di nuyu di ziyaara ñi seetaan ñépp fu nu mënti nekk ci biir réew mi ak ci biti réew di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu defal nu sutura defal leen ko di del siwaat rek ci jataay bi tey gannaaw jataay bi weesu ñu ngi nekkoon ci sunu borom tabaaraka wa taala li muy wax ne képp ku ko lànkal dafay jël seytaane boole la ak moom nga làngoo ak seytaane ku lànkal yàlla seytaane ngay làngool ci loolu la ñu nekkoon di ci waxtaan ci émission bi weesu tey incha allahu taala dañuy ubbi benn thème boo xam ne danañ ko amal ci ñaari jataay ndax benn rekk du ci xaaj liñ ci indi yëpp ñu tuddee ko wala taqrabu zina bul jege njaalo wala boog ñu tuddee ko musiba yi nekk ci njaalo lu mat di waxtaane la te lu néew luñ koy waxtaane la njaaloo lu mat di waxtaane la te lu néew lu nu koy waxtaane la te lu muy bari di am la jamono lu muy gën a dox rekk di gën a jegeñ ak jeex njaaloo di gën a tasaaroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon nanu ko jamono lu muy gën a dox di gën a jege ak jeex njaaloo di gën a tasaaro lan mooy njaaloo ci diggante góor ak jigéen lay dox góor ak jigéen yu ànd te alxëyri doxul ci seen diggante xam ngeen ne mariage muy sëy ci diggante góor ak jigéen du rekk mbir moo xam ne lislaama ko indi waaye fi la ko fekk ca maam aadama ak xawaa la dooree di wàcc di wàcc ba ci biir diine yi ba ci ñi gëmul diine ñi gëm yenant yi ñi gëmul yenant ñi gëm téere ñi amul amuli téere ñépp xam mariage ndax xam nañ ne loolu dafa bokk ci ak nite mooy góor ak jigéen bu nu bëggantee ñu yewenal seen diggante moo xam ci aada la moo xam ci diine la ci diine nag bu ñaari way bu ñaar àndee góor ak jigéen te alxayri doxul seen diggante loolu la ñuy tuddee njaalo waaye diine moom dafa gën a xóot tàmbalee njaaloo ci bët yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bët dana njaaloo ñu ne ko bët nu muy njaaloo mu ne xool image yi nga nekk sëgg ci sa téléphone di ko seetaan jigéen mel ca naka sudul noonu sa bët di ko xool nga cee am bànneex yaa ngi njaaloo ci sa bët jigéen nga image góor gu futti yaramam nga di ko xool di bànneexu ca xool ga sa bët a ngi njaaloo noonu la ko yenent bi toppee ba ci loxo dana njaaloo ñu ne ko loxo nu muy njaaloo mu ne tàllal yow góor gi jël sa loxo jox ko jigéen ju la lewul yow jigéen ji jël sa loxo jox ko góor gu la lewul yaa ngi njaaloo ci loxo boobu mu ne nag pëy moom mooy dëggal njaaloo gi wala mu bañ ko dëggal kon lislaam gën na ko yaatal waaye bi ñuy waxtaanee mooy njaaloo gi nga xam ne nii mi ngi dox ci diggante góor ak jigéen ci euh, li nga xam ne moom mooy seen pëy lu tax ñu indi thème bi di ko waxtaane fan yi dafa am coow lu juddu ci benn bërëb bu ñu wax ne dañ fa doon téye ay xale am ko jigéen kuñ ci jàpp ku tudd Ndella Madior juuf du dañuy waxtaanee thème bi ngir ne xale ya nekk ci bërëb boobu ñépp dañoo nekk ñoo xam ne ñi ngi sosoo ci lii nuy waxtaanee déedéet waaye la fait que am na ca donte ñaar ñett la ñu waxee ko noonu donte ñaar ñett la yell na ñu duut ci loolu baaraam ngir wattandikuloo ñu lu mel noonu dalagul ñu daw lépp luy tax mu dal leen ndax ñu bari rek li ñuy lu mooy dajale ay xale ci anam gu mel nii toppatoowoo leen joxoo leen ñu lekk ñi ngi xiif di jooy ñi ngi feebar fajoo leen ñi ngi faatu ñu ngay yóbbu di suul loolu mooy problème bi mais lan mooy cause bi luy cause bi ku nekk mën na am lu mu wax ne mooy cause bi xale yooyu nan la def ba jot ci ñoom ndax xale ya fa nekk dañu nekkoon ñoo xam ne nii ci couple lañu juddoo yaay ak baay yuy sëy xëy jël seen doom yóbbu ko foofoom de question la lan moo indi aw nit jël seen doom di ko dénk ku jigéen moom mooy tànn ay tur di leen ko jox lu xew doom yooyu noonu ana seen baay ana seen baay doom yooyu ndax góor dana jóg takk jigéen ñu sëy am doom mu jël doomam di ko jox ndaw soosu naan ko utal ko tur ba ñuy gis muy annoncé fu mu toll ci réseaux sociaux yi laataa ñu koy jàpp xale bii kat juddu na diw sàngam mii lañ ko tuddee xale bii juddu na diw sàngam mii lañ ko tuddee ay nit ñu siiw yu nu xam ci Sénégal xale yooyu ana seen baay nu ñu juddoo bu ñu xóotalee mbir mi ba xóotal ko dañuy gis ni thème bii nuy waxtaanee bokk na ci li sabab jëf yu bon yu mel noonu bu ñu ko wër-wëree nag bañ dut baaraam ci góom bi naan waaw noo du loolu kese du loolu kese la cay looloo tax ñuy waxtaan du njaaloo kese indi lu mel noonu waaw aha kay mën na am yeneeni cause yu tax xale yooyu noonu lay yegg si ci loxo ndaw soosu waaye cause njaaloo gi tamit nañ ci duut baaraam wattandikuloo ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy suñuy mbokki pas-pas yàlla lu mu tere rek boo ko defee musiba ya danga ko gis ci kanam lu yàllay tere boo ko defee musiba ya danga ko gis ci kanam dafa am ku ma gis ci témoin yi mu ne dafa nekk ci benn bërëb di fa jànge iniversité la tudd di fa jànge ba am lu ko dal loo xam ne nii ka mu nekkaloon doon bëgganteeg moom la am lu dox seen diggante ba mu jëlee ca ëmb dem giseeg ndaw sa mu wax ak moom ci gàttal ba daal ca kër ndaw sa la accouché ndaw si sartonteeg moom weer wu nekk dana am benn somme bu muy joxe bu toll ci trente mille francs ngir meewu doomam waaye mu waxoon ak moom ne ko kat kii mu séqal lii ba lii dox seen diggante bëggul mu siiw seeni mbokk jot ceeg famille yi waaye daal am nañ projet mariage mariage mook kii mu séqal lii su demee nag ba loolu taxaw ba mu tàkk ko day ñëw jël si xale bi salon li mu wax yàlla xam la cee dëgg ak lu dul dëgg li tax may indi loo rek mooy pour li ñuy tuddee tamhid laltaayu lu tax ñu indi waxtaan wi lii bokk na ci ak leneen lu nëbb lu feeñul mu ne bi demee ba war a jot ca xale ba fekk sëy naag ka mu seqaloon xale bi dem mu laaj ko ay million pour mu war ko delloo xale bi loolu benn kaa la lan moo indi loolu njaalo léegi nag nañu gëmm suñuy bët fatt suñuy nopp ñun ñëpp ne noonoo noonoo non non buñ ci tudd loolu waa d'accord ki nga xam ne bëggula xuus ci biir mbir mi moom mën na ñëw rek ne na gëmm bëtam na takk ay noppam buñ ci tudd njaalo xale yooyu daal ay lay cëpp rañ rek xëy na seen yaayee ko mënta yor seen papa d'accord ñu jël ko jox ndaw si muy tëral ci ay basan ki nangami nangam ak nangam ak nangam ñuy feebar duñu am ku leen faj loolu kuy gëmm bëtam bu ko neexee mu ne waaw noonu buñ ci tudd loolu xëy na xëy na mën na jël xëy na xëy na yu bari waaye bi may duut baaraam ci biir xëy na xëy na yooyu mooy bii ci kaa yi am na ci yu feeñ ne fàng luy wane ne la yóbbu xale ya ca loxo kooka njaaloo la njaaloo am ca doom mënoo koo yor am ca doom bañ gàcca tax nga jël ko dénkaane ko foofu loolu conséquence su njaaloo la jur ray am doom ba noppi ray ko wala laataa muy juddu nga yàq ëmb ba nga yàq ëmb ba tey boo gisee féministes yi di rey seen bopp ngir nanu légaliser avortement avortement médicalisé waaw ngir encourager njaaloo bokk na ci ndax gis nañ cas yu mel nii yu bari yoo xam ne nii tey bu loolu légaloon bunt boobu ubbeeku na ba ku mu neex nga def lu la neex ba mu neex la nga jëlee ci ëmb dem ñu yàqal la ko nga continuer waat di def lu la neex nga continuer waat di def lu la neex waaw léegi li indi loolu yëpp mu gannaaw sikkal ndaw saak polis jàpp na ko ña ngay enquête jàpp nañ lii révélation tey révélation suba journaux yaa ngay bind revue de presse kat yaa ngay revue de presse internet ba ku nekk ngay live di ca wax waaye point bi dama gis ñu mel ne dañ ko ci ignorer lool mooy njaaloo point njaaloo gi hmm. te lu mat di waxtaane dafa mës dégg kenn ku ne da njaaloo gi tasaaroo ci Sénégal ñi war a waar nit ñi pour ñu bàyyi njaaloo ñooy njaaloo mu ne ko ah kon de loolu ëpp naa def kon de loolu musiba la waaye ndeysaan lu lu lu triste la mhm. bu fekkee ñun ñi war a wax qaala allaahu qaala rasulu li yàlla wax ci njaaloo li rasulullaay wax ci njaaloo aji wax jooju dem ba nekkat ñi war a tere njaaloo njaaloo moo tax duñu tere njaaloo moo tax njaaloo gi tasaaroo loolu musiba la waaye nag li Cheikh Alxaaj Abdul Aziz daan wax fa ala failil munkari nahyul munkari kay laa yajtamiu alayhi ithmaani kii njaaloo sax warul te mu tere njaaloo ndax balaa ñaari bàkkaar di daje ci kawam muy bàkkaaru njaaloo ak bàkkaaru xam ne njaaloo ngi am nga bañ wax ne lu bon la waaw ala kulli xaalin mbokk yi euh, xëy na ka dem sax ba doom juddoo ca kooka mooy ki yeewut lool waaye léegi ñi yeewu lool ñi ngi njaaloo te dara du xew dara du xew maanaam kenn du yëg aha laa tuddee dara du xew waaw da nga dégg ku ko wax waaw bu fekkoon ne lii rek la konoon bi ñuy foo mën nañoo jëfandikoo nangam nangam ngir doom bañ caa juddoo ah encouragé kat yaa ngoog waaw encouragé kat mooy kat del njaaloo waaye del aar sa bopp boo bëggul doom juddoo ca naanal xoox yi pikiirol pikiir bii jëfandikool nangam gi ngir bañ doom juddoo ca <laughs> gàcce àdduna ngay bañ gàcce àllaaxira mi ngi lay xaar te ñu déglu li tax ma ne waxtaan mi dañ koy xaaj ñaari waxtaan bu ñu xuusee ci texte yi ku ragal yàlla daan ko def danga ko ba ku ko mësuloon a def danga ñaan yàlla li des sa dund mu musal la ci nga bañ ko def ndax lu bon la loo am lu mu bari bari booy njaaloo danga ko ñàkk bis bu dee taar la njaalookat boo gis mu sax ci njaaloo léegi tey taaram yàlla rocc bu dee alal la yàlla dana ko rocc waaw waaw day gàttal sax fan boole ci di xatal wërsëg baaxul mag ñi dangaa daan dégg ñu naan ndaw buy wut day moytu sobe dañ daan seen wax yëpp ndaw buy ut day moytu sobe njaaloo lañ la bëgg a wax ne buy ut da ngay moytu njaaloo koo gis mu départ di dale ci lu ndaw di yéeg ba yegg ci njobbaxtal rek fekk na yoonam mi ngi traversé moytu njaaloo waaye kuy wut di njaaloo loo am danga ko ñàkk ku dem ba amit di njaaloo loo amoon danga ko ñàkk day dindi leer ci doomu aadama day dindi barke ci jëmmu day dindi barke ci alal day gàttal fan day waral mbugalum bàmmeel day waral sax ci safara lépp njaaloo dana ko def te buñ duggee ci taxi yi léegi dana ñëw kon mbokk yi njaaloo mbirum bakkan la am na ñoo xam ne nag dañ leen a ñoo ñu taxuñ ñuy wax am na ñoo xam ne dañ leen a nax doroge leen ak nangam ñu taxul ñuy wax ña leen ko def kay xëy na ñoom moom wax ki ñu forcé ba ànd ak yow kooku sariya tegu la dara loolu buñ duggee nag ci buntu boobu noon la ci saria ñu xool ci yan anam lañ la forcé loolu lu xóot la ci saria waaye ki nga xam ne daal ci coobare boppam la jóge dem fekki jigéen waxtaan moom ndaw sa waxtaan ak moom ñu juboo ànd ci njaaloo hmm, bon la de te xew na de <laughs> te saaroo de léegi xale yu peragutam soow xonq cuur aywa ñoo dugg ci sirki njaaloo bi ba ku ci nekk li ngay bàkkoo bu dee góor nga am nga quinze ans seize ans xam nga jigéen ñu bal nu ci waxin wi jigéen ju téye boppam kooku seer la seer la ki nga xam ne dafa téye boppam xaar jëkkër kooku seer la xale yi léegi xale yu tuuti yu xonq cuur cuur soog di toj cim nen ñooy toog di waxtaan ku nekk di ndamoo sama farwa bis ba ma njëkkee nangam ak nangam ak nangam ñu def ko mu nekk benn euh, waxtaan ci seen biir waa yow est-ce que man de bimma ba ma ko ba malee ba malaa xale yu góor yu toog di waxtaan loolu la ñuy waxtaanee mbirum sexualité xale yu jigéen yi loolu la ñuy toog di waxtaanee sama ndaw sa sama farwa sama ndaw sa sama farwa ci ngay gisee yu bon yi faral di am léeg-léeg rëcc génn ci ay vidéo ay xale yu dajaloo def lu bon site mixa jël génne ci internet ba vidéo yi circulé circulé waaw site boobu moom xam naa ñi ko dëkkee nañ leen di tooñ lool scandale wo scandale ñu ne site mixa lan moo fay am ay xale yu tuuti yu ndaw ngay gis ñu def lu bon moo tax war nañ di ko waxtaanee waajur yi nga xam ne ñooy yar tamit di gën a jël seen matuwaay ci wattandikuloo seen njaboot lépp lu jege ci diggante góor ak jigéen ci anam gu legaalut ñu ci waxtaan ak ñoom di leen yedd di leen fàttali waaye fexe leen a jàngal seen diine bañ xam seen diine lan la ci wax ngir mën ko dawandiku mbokk yi sunu waxtaan wi ñu ngi ko jukkee ci benn téere bu tudd azawajir an iqtiraafil kabair ibn hajar alhaytami moo ko taalif azawajir an iqtiraafil kabair liy jaajjiwaatee ba nit ki ko bàkkaar yu mag yi noonu la tuddee téere bi alkabiratu wal xamsuuna baada thalaati miati azina baada thalaati miati azina day lim bàkkaar yu mag yi grande pêche yi ba yegg ci cinquante-huitième bàkkaar mu jagleel ko njaalo cinquante-huitième bàkkaar yu mag mu jagleel ko njaalo boo demee ci téere bi ci tome deux page deux cent douze ba deux cent vingt huit deux cent douze ba deux cent vingt huit ci njaaloo lay wax <laughs> ak nit ki ni mu war a sàmmee boppam takk tubayam bam dëgër takk sëram bam dëgër ci loo rek lay wax imaginel deux cent douze ba deux cent vingt huit page deux cent douze ba deux cent vingt huit moo tax ma ne loolu du xaj ci benn waxtaan alaa kulli xaalis wata dañ ciy jukki rek li ci des incha allah ñu jàppal ko idda ba beneen jataay ci biir bunt boobu lay waxee ba yegg ci laaya ji sunu borom di wax ci suuratul furqaan walladina laa yad'uuna ma'a allahi ilahan axara wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuuna wa man yafal dalika yalqa athama yudaaf lahu aladabu yowma alqiyamati wa yaxlud fihi muhaana illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanatin wa kaana allahu gafuran rahima sunu borom bi muy misaal di melal ñan ñooy ibaadu rahmaan yi yàlla bi muy wax ci alxuraan ñan ñooy ibaadu rahmaan bokkul ak ibaadu rahmaan bi nekk kuréel ci Sénégal ñu xam ko waaye terme boobu ñu ngi ko jëlee ci alquran tuddee ko seen kuréel ibadur rahman sunu borom dafa am ñu mu tuddee jaamu yàlla yi wax seen critère seeni critère ne nii la ñu mel ca ba muy jeexal critères yi laa yi la jeexalee walladina gaa ñi nga xam ne laa yadduuna du ñu jaamu ma allahi ànd ak buur yàlla ilahan naaxar du ñu jaamu yàlla boole ci jeneen yàlla ju ñu jàmm yàlla kott képp la ñuy jaamu duñ ko bokkaale kenn ci jaamu ko ci melokaan yi la bokk waya wala yaqtuluuna nafsa duñu rey bakkan allati xarama allahu bakkan bi nga xam ne yàlla daf ko wormaal tere ku ko faat illaa bil xaqi lu dul ci dëgg duñu bokkaale duñu rey bakkan wala yaznuuna te duñu njaaloo yàlla bi muy tàgg jaamam yu sell yi def ci boole ci tàgg ya ne ibaadu rahmaan yooyu duñu njaaloo ku bëgg a bokk ci jaamu yàlla yu sell yi doo bokkaale doo rey bakkan doo njaalo waman yalqa waman yafal dalik ku def lii nag yalqa athama bàkkaar bu mag ak lay xaar wala bindal nañu ko bindal nañ la bàkkaar bu mag yu daaf lahu l adabu sunu borom dalay fulal duma yim lay dugal duma yowmal qiyaamati kat ak bis duubul duma la yàlla di duma kuy njaaloo yomal xiyaam duubul duma lala yàlla di duma wa yaxlul fiihi muhaana danga sax ci safara doon ko ñu doyadal illaa man taaba lu dul ku dégg na njaaloo dafa bon fekk yaa ngi ko doon def nga tuub wa amana nga gëm yàlla wa amila amalan saalihan nga jëf-jëf ju baax fa ulaayka gaa ñii dégg ca aaxiru zamaan ñu ne njaaloo baaxul ñu ne ah bis tey dootuma dalati bis ni ki tey dootuma dalati léeg-léeg Oustaz Mor Cheikh Mor am ku woo ne yàlla def ko ko nattoo ndeysaan sa sa yaram di daw léeg-léeg nit woo jàmbat la ko wane ne yàlla dafa dogal wala nattu la nattu la boo xam ne loolu la ko yàlla nattoo njaaloo tuub rek illaa man taaba lu dul ku wa amana gëm yàlla wa amila amalan saalihan waa kay boo njaaloo soo tuubee da ngay di yokk sa jëf yu baax yàlla neen fa wulaayka gaa ñooñu doon bokkaaleeka rey nit ak njaaloo bu ñu bu di def lu baax yubaddilu llahu sayyiaatihim xasanaat seen sa sunu boroom subhaanahu wa taala yu bon yañ daan def daf koy jël soppi ko def ko mu nekk yiw wa kaana nekk na laahu buur yàlla gafuuran di bëri njëggal ci defkatu bàkkaar yi raximan di ko bëri yërmande ci ñi nga xam ne ñooy tuub gannaaw bi ñu xamee ne yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ku bëri njëggal ak yërmande bi li taxoon mu wàcc dafa ay yéefar yu ñëwoon ci yenent bi sallallahu alayhi wa daan bari lool lu ñu rey nekkoon ay assassin assassin ay reykatu nit ak njaalo ñëw ci yenent bi ne ko li nga nuy lu baax la waaye soo mënoon a leerala lii nga xam ne moom lañ nekk nii di ko def di rey nit ak njaalo ndax bu nu tuubee yàlla danañu ko baal sunu borom wàcce laaya ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia yàlla nee na yéen ñi nekk ci njaaloo dem ba yëg ne njaaloo baaxul ngeen ne ndax bu ma tuubee yàlla dana ma jéggal ndax li ma ko def daa bari lool sunu borom nee na bu leen xaddi ci sama yërmande ndax ku bari njëggal laa ko bari yërmande laa bàkkaar yëpp laay baale mooy dafa am jenn waay ju ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ana ban bàkkaar moo gën a màgg ci bàkkaar yi mu ne ko an tajaala lillahi niddan mooy nga utel yàlla ndend bokkaale wa huwa ya wa huwa yàlla bind la ba noppi nga koy utal moroom mu ne ko loolu de lu màgg la mu ne ko suma ayyu mu ne yonent bi gannaaw bi ban bàkkaar mu ne ko an taqtula waladaka maxaafata an yataama maak rey sa doom ngir ragal mu lekkandoog yow am doom ba noppi ragal ne doo am loo ko dundalee ray ko ray ko mooy philosophie ñenn ñi planning naan su ma amee doom yu bari duma am lu ko dundale su ma amee doom yu bari duma am lu ma ko dundalee yow yàlla bu la bàyyee sax da ngay am loo dundee ba naan su ma amee doom yu bari du am lu ma leen dundalee yow am ñu sëy ne ngéej a am doom yàlla may lay doom ngay bañi doom naan am lu ma ko dundalee ku la wax ne yow yaa yor wërsëgam yow kott bu la yàlla seetaanoon doo am dundee yaag sa soxna si képp bu leen yàlla seetaanoon du ngeen am lu ngeen dundee ba naan doom ji bu ñëwee duñ am luñ ko dundalee. loolu ceddo yi démb beneen façon lañ ko doon defee daaw ñu planning waaye dañuy am doom rey ne bu juddoo bu màggee duñ am luñ ko dundale loolu ci bàkkaar yi mag yi la bokk mu ne yenent bi gannaaw bi ban bàkkaar moo ci topp mu ne ko antu antuzaaniya xalilata jaarik mooy ngay njaaloog sa soxna dëkkandoo ngay njaaloog sa soxna dëkkandoo am na ñoo xam ne vice boobu la ñu am duñ njaaloog mukk jigéen ju sëyut jigéen ñu sëy ñi la seen feebar nekk ñooñu rek la tànn ñoo xam ne ñu ngi ci ba mu sëy la tànn di njaaloog ñoom bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy nga njaaloog sa soxna dëkkandoo am na benn xadis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lan ngeen wax ci sàcc ñu ne ko lu bon la lu xaraam lan ngeen wax ci njaaloo ñu ne ko bon lu xaraam mu ne nga sàcc fukki kër bàkkaar ba moo gën a sedd nga sàcc sa dëkkandoo lu ngeen wax ci njaaloo ñu ne ko lu bon mu ne nga dem njaaloog fukki jigéen yoo dëkkalul nga njaaloog sa soxna dëkkandoo moo ko gën a bon waaw dëkk ak nit soxnaam nekk fii dem liggéey yi nga nekk ca kër ga di tàppaasanteeg soxnaam di ko nax di ko may xaalis di laamisoo nax ko ba njaaloog moom dem ca biti njaaloo jiwoon ak fukki jigéen bàkkaar ba la muy bari bari moo gën a woyof ca yàlla nga njaaloog sa soxna dëkk la ko sa alayhi wa sallam wax bi mu ko waxee loolu yàlla ci la wàcce laaya ji ñu jàng léegi di ko dëggalee loolu yenent bi tontu kooku na xajar ba tey mooy woy di wax ne li tax yàlla tere njaaloo dafa nekk bàkkaar bu mag moo tax yàlla tere ko dafa bokk ci bàkkaar yi gën a ngand ci bàkkaar yi moom njaalo te nekk faaxisha bi mu waxee wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan la ca teg bu leen jege njaaloo bu leen ko jege la wax laa ilaha illa bu leen ko jege wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo ndax lan innahu kaana faaxisha faaxisha la faaxisha njaaloo ngóor jigéen rek ngay dégg yàlla di ko tuddu di tudd bu tuddee bàkkaar teg ci faaxisha njaaloo góor ngóor jigéen moo tax la yoo xam ne nii musiba gi buy ñëw day wàll ñeneen ñi ngóor jigéen njaaloo waaw lam tadhar il fi qawmin qattu illa fasha fihimu taaun wal awjaau allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw sallallahu alayhi wa sallam nee na bu demee ba dëkk ñu maye fa carte carte jigéen ñi njaalo nëbbatuñu ko tasaaroo yàlla dana wàccee feebar yoo xam ne nii seeni médecin munuñ ca dara feebar yoo xam ne seeni maam yi xamuñ ko woon ñuy defi analyse duñu gis defi rajo duñu gis hôpital yi fees ñi faatu ñuy sangi suul te bokk na ci li koy sabab njaaloo ngóor jigéen fahish feebar yu seeni maam xamuñ xamutoon la njaaloo ngóor jigéen di sabab bal hiya akbarul kabairi baada al qatli nee na moo gën bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi gannaaw rey bakkan mu ne loolu moo tax yàlla lëkkale ko ak bokkaale ci laay ji jiitu gis na fi mu fi mu dugal bokkaale dugal fa ray bakkan la dugal njaalo yàlla noonu mu ko toftalee ah toftale googu yàlla toftale ko day wane gravité jëf ji muy njaalo <laughs> bokkaaleeg ni mu rëyee ba yàlla ne ku ko deyaale duma la ko jéggal ray bakkan ni mu rëyee ba sunu borom ne képp ku rey bakkan te tey ko na ma laa lay dugal nga sax fa yàlla mere la hmm? mbugal la mbugal mu métti xoolal ñaari bàkkaar yu rëy yooyu bokkaaleeg rey bakkan yàlla jël njaaloo toftal ko ci wa min thamma qaranahu taala bi shirki wal qatli fi l ayati sabiqati mu ne wa qaala sallallahu alayhi wa sallama yaa machara annaasi ittaqu zina fa inna fiihi sitta xisaalin thalathun fi dunya wa thalathun fi l axirati amallati fi dunya fa yudhibu lbahaa wa yurithu lfaqra wa yanqusu lumura wa amallati fi l axirati fa saqatu llahi wa suu lxisaabi wa adaabu nnaari xadis bi rek bii bii képp kott dong xadis bii war na tax ku doon jaaloo nga ba ko ku ko mos sa def nga mooy nga nga nga wattandiku ko fexe ba doo ko def xadis bii rek moor déglul déglul xam li ñaan yokk leen volume yi yokk leen volume yi njaaloo ko bon ëkk bon waaye dafa am gaaf njaaloo dafa am gaaf conséquence njaalo musiba njaalo xam nga nit mën na def benn bàkkaar bàkkaar boo xam ne nii appare du def effet ci dundam mën na dem moom yàgg tuub ko yàlla jéggal ko ko wala mu faatu yàlla xaar ëllëg pour duma ko mais njaaloo effet yi fii lay tàmbali xadis bi loolu lay wax na xajar haytami nee na yonent bi sallallahu alayhi fii def ne yaa ma'shara naasi eh, yéen nit ñëpp laay waxal bawul kenn de <laughs> ma'shara naas la jëfandikoo waxul jullit bi ki gëm yéen nit ñi la wax yéen nit ñi itaqu zinaa mooy ngeen moytandiku njaaloo ñu ne ko lu ci ne mu ne fa inna fii nekk na ci njaaloo sitta xisaalin juróomi musiba sitta xisaalin juróomi musiba juróomi conséquence mi ngi ci njaaloo salaasun turaa yi fi duniyaa fii ci àdduna la lay dal ku bàyyiwul njaaloo ñett musiba yi moo lay dal ci àdduna wa salaasun yeneen turaa yi yeneen ñett yi fil axirati ëllëg alaxira la la ko yàllay dencal amalati fi duniyaa yi nga xam ne fii ci àdduna la lay dal njaaloo fa yudhibul bahaa day dindi taar wa yurisul faqara day waral ñàkk wa yanqusul umra day gàttal fan wa amalati fi laaxira yi nga xam ne nii alaaxira la la ko yàlla dencal fa saxatullaahi boo ñëwee da nga yàlla fekk mu mere la wa suul xisaab bi wa suul bi xisaab yi yàlla mu audité la audition bu métti métti xisaab bu tar wa azaabu naari ak mbugalum safara trois fii ah lii bànneexu nangami minute jar na ko jaral na la ko bànneexu nangami minit nga jële ci ñaaw ñaawaay taar boo amoon yàlla rocc ko loo rafet rafet bañ naan la dangaa belek dangaa boo moytul njaalo moytu ko gis nga bu la tilim tilimu njaaloo taqee sangu du ko dindeeti dermatologue bi gën a aay amatul produit bu mën a dindi takk-takk njaaloo amatul du diw du sangu du gommage du dara poudre rek lépp ci yem bu la takk-takk njaaloo taqee c'est fini jeex na te ku set ku nekk bu lay xool takk-takk boobu dafay affiché wu ci sa kanam hmm, takk-takk njaaloo ku set ku la xool day affiché wu ci sa kanam gis nga koy def noonu ngay nëbboo noonu la njaaloo di nëbbee satar taar yow jigéen ji sonn ngir ut taar mu jaral la lu ne ngay jënd lu ne di ko diwoo wata nikul njaaloo de wallahi am na loo xam ne diwu ko maye leeru yàlla leeru yàlla la te day fay leeru yàlla googu di tàkk ci kanamu ku ko soob wala jëmm ku ko soob yàlla day jël leeram sànni ko ci nit jëmm ji yëpp nekk leer njaaloo day fay leer googu këriis délestage ngay am booy njaalo du amati leer délestage ngay am subhanallah mhm. ñaareel bi mooy njaaloo day waral ñàkk umu booy njaaloo da umu umu mbir yi daa dëgër lu ma yor du toog ngam nangam nangam xoolal sa bopp foo noo def ak njaalo da koy sabab de mbir yu dëgër bari na ndaw yu toll ci war a takk lu ñu dajale mu seey wala mënuñoo dajale dara bokk na ci la koy sabab ca ñay njaaloo njaaloo bokk na ca la koy sabab ca ñay njaaloo njaaloo dana sabab yow jigéen nga dema dema dema dem ba wax ak góor ba ngeen jàpp bis nga xëy rek mu génn ca ndax amoo wërsëg nga naan dama am faru rabak ey fekk bu dee koy njaaloo la na ko bàyyi lépp looy lijjanti mu jafe fekk yaa ngi njaaloo ba day waral ñàkk waaye beneen musiba gi mooy boo waroon dund cent boo fekkee kan nga sunu borom day wàññi sa dund ba cinquante ans waaw njaaloo la bokk soo waroon a dund cent ans sunu borom day wàññi sa dund nga dund cinquante ans wala taqrabu zina ay waay bu leen jege njaalo yàlla xanaa li mu wax ne bu leen ko jege mi ngi bëgg leer bu leen ko jege mu ne nag bu dee àllaaxira nag la la fa yàlla dencal mooy nga ñëw fekk yàlla mere la xale bu génn dem doxi guddee ñu ne ko yii sa papa nom la mere sa xel du dal de na yàlla sunu borom nga dem dëkk bu tudd àllaaxira xamoo fa dara amoo fa dara ñu ne la boroom dëkk ba mere na la te njaaloo day tax yàlla mere la waaye day warali tamit kii njaaloo sunu borom topp la wax ak lépp xisaab bu bon bu metti mooy yàlla bañ a bàyyi benn détail benn foo dugg loo fa def loo am noo ko amee foo ko dugal loo wax lu tax nga wax ko fa nga ko waxee yàlla ku mu topp topp googu rek duma la yàlla bu bàyyiwul benn détail rek duma la waaw te njaaloo day waral yàlla topp la détail détail yooyu yëpp yàlla topp waaye njaaloo musiba gi ci mujj mooy njaaloo kat këram mooy safara système mu aljana àndul ak njaaloo kuy njaaloo système mu aljana mënu la adopté sa yaram système mu safara bi moo adopté sa yaram njaalookat système mu safara moo adopté ak yaramam moo tax ci nekk rek dawal tuub gaaw ba ko balaa dee dikk laa ilaha illallah mos naa dégg ci xibaar ya ñu ne ca benn auberge bu nekk ci benn quartier bu may bañ a tudd fii ci ndakaaru dañoo fekk mag mu nekkoon ak ndaw di def naka sul noonu ñu ne faatu subhaanallah astaghfirullah subhaanallah yàlla na ko yàlla jéggal jéggal nu jéggal mbooloo mi julli oh di njaaloo ba dee dikk dañ hmm, ko moytuwaay bànneexu mi minute jaru ko mu teg ci ne waman maata képp ku faatu min xayri xaddin ci lu dul yàlla gëtën la maanaam lu dul ñu gëtën la fii bi nga njaaloo cawuñu la hmm? bañ la cawee ku njaaloo ñu caw ko bàkkaar bi teggeeku na ko xoolal lislaam ne ku njaaloo nañ la caw téeméeri yar nga xam ne bàkkaar bi du lu ndaw lislaam na compliqué na seede yaag niñ koy fekkee yooyu lu jafe la pour ñu mën cee caw nit bu fekkee ne yow danga naan noo man kenn mënuma cee jàpp te yëgoo ne yàlla moom mi ngi lay jàpp ba kenn cawu la ca maanaam yow demoo avoué xam nga lislaam dafa may li ñuy tuddee avoué maanaam yow yaa dem ci cawkat bi ne ko kat damaa njaaloo caw ma jamono yeneen bi amoon na sallallahu alayhi wa sallam lan mooy njëriñ li mooy buñ la cawee bàkkaar bi da lay teggee ko buñ la cawee téeméeri yar yi bàkkaar bi day rot waa léegi nag kii moom daa njaaloo kenn cawu ko ndax sax yëguñ ko moom ndawam si doom nga ko yëg ba faatu ca loolu yàlla jéggalu ko bàkkaar ba min xayri xaddin ci lu dul ñu caw ko wala bu dee ku am jëkkër la njaaloo dañ koy raj mu jam ba mu faatu ndax ngi dégg njaaloo ni mu grave def benn bàkkaar boo xam ne day tax ñu jël ay xeer di ko joor ba nga faatu njaaloo te am jëkkër mos wala nga mos ko am njaaloo te am soxna wala nga mos ko am dañ lay jam ba nga faatu ku faatu nag te kenn géttanu la te tuuboo bàkkaar ba uddiba fi naari safara lañ lay dumaa bi siyaatin min naarin yaru safara lañ lay caw ku njaaloo fii cawuñ la fii tuuboo ko fii ba faatu dem fee biir safara lañ lay dugal jël ay yaru safara di la ko caw yàlla na nu umb yaru safara yaru safara yàlla na nu ump kama warada comme nim rotee fi zabuuri ci zabuur maktuban ñu bind fa ne anna njaaloo njaalookat yi yu na dañ leen di wékk bi furujihim ci seen pëy fi naari ci safara njaalookat yi dañuy jël seen sexe yi takk ko buum ba mu dëgër ñu yeew ko ci kaw fenn ndax yéen a ngi imagine lu métti loolu seen sexe yi bu dee góor sexam bu dee jigéen kanamam buum ñu def ko ca takk ci kaw wa yudrabuuna alayha bi siyaatin min xadidin jël ay bol weñ ay mbol de weñ di leen ko door fa iza staxaasa ahadu min darbin su kenn naan wëy yaay dimbali leen ma naa dadhu zabaniyatu malaaka yi garde safara nekko ko ay na kaana hada sawt sa baat bii ngay wax naan dimbali ma fu mu nekkoon wa anta yow bi ngay njaalo taxaku yaa ngi doon ree wa tafraxu yaa ngi doon bég wa tamraxu wa turaaqibu llaha jalla wa ala wala tastaxi minhu yaa ngi doon happy te bàyyi woo xel sunu borom subhaanahu wa taala ne mi ngi lay gis rusoo ko tey ñu lay duma ngay joy subhaanallah hmm. ay waay nañ ko dawandiku ko nañ ko dawandi de lii ci Zabuur ci téere yi jiitoon alxuraan lañ bind lii ne képp kuy njaaloo boo faatoo dañu jël sa sect takk ci kaw takk sa sexe buum aj la fenn jël ay mbolde ay weñ yatu weñ di la ko dóor boo yuuxoo malaaka yi na waaw yow sa baat bi tey dangay yuux yaa ngi doon njaaloo di ree di kontaan rusoo yàlla ragaloo ko xalaatoo woon ne yàlla mi ngi lay gis tey ñu lay duma ngay jooy malaaka yi loolu lañ lay yeddee mbokk yi ñu yem foofu incha allah ba sunu ñaareelu jataay ñu indi li ci toog ku dégg lii da nga dawlee ku dégg lii da nga dawlee bànneexu minute wallahi jarul mbugalum yàlla ak dund gu yàqu baaxul de baaxul baaxul kuy jëfandikoo xelam rek benn mbir moo xam danga koy def rek mu affecté la immédiatement sa yaram tàmbali yow nga tilim tilim tilim boo xam ne sangu du ko dindi rek war na tax nga dawandi ko julli dafa war a fexee doon ku sell ah ku sell ku set te sell ak set googu nga xam ne sell googu mooy indi set googu àndul ak njaaloo soo njaaloo da ngay taq taq boo xam ne sangu du ko dindi diwu du ko dindi leeru yàlla du ànd ak lëndëmu njaaloo mukk mënuñoo ànd waaw kuy dawandiku lu mel noon nag wax dëgg dem ba ay doom di juddu ngay sànni doom di juddu ngay suul doom di juddu ngay rey bañ doom yu juddu di yàq biir bañ doom yu juddu di wan ni xoox ak pikiiroo ka planning ak lu ne nga dugg ca ngir bañ gàcce yi fii ngir mën a am liberté continuer njaaloo wallahi ku dégg lii te gëm ko te dëgg la de luñ la wax du ay léeba ki du scénario dëgg la ku dégg lii ragal suñ borom waaye da nga dawul daw bàyyi ko bàyyi koo gën a sedd uti pexe ma ne bàyyi njaaloo gën a sedd uti pexe ngir bañ doom juddu bàyyi njaaloo ko gën waaw yow yaa ngi nëbbu nit ñi sa njaaloo gi bañ mu feeñ te nëbboo ko yàlla inna allaha kaana aleykum raqiban xanaa xamoo ne yàlla mu ngi lay surveiller tey boo tàmbali woon njaaloo ñu ne la ah attention dafa mel ne lii caméra de la de da ngay daw ndax bëggoo ñu lay filmer ngay njaaloo ah ana rabbu samawaati wal ardi alladi laa taaxuduhu sinnatun wala nawmun doo ragal kooku ki nga xam ne moom bëtam bi du mës a teggee ko ci sa kaw doo ko ragal ba tax nga dawane ko njaalo yàlla ñu si yàlla musal lii la ñu leen indiloon ci seen émission axiru zaman di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wa